jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ci wasaare làmb ñu dalal koo xamante ne vraiment kenn du ko présenté ci làmb borom ñaari xale yi mun naa ne ñaari xale yi nga xamante ne ñoo gënoon ës ci làmb daf leen a boole daan bu ne maa daan Bour Sine ñu ne déedéet waaye mu ne maa daan Kalmu diggante boobu rek war nañoo xam ne seen Sène Junior nekkaat na beneen xale boo xamante ne vraiment yegg si na ci làmb tey ñu dalal ko bëgg waxtaan ak moom lu baree bari ci làmb ñu nuyu ko bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wel waxtaan bi mbër maa ngi lay nuyu baax di la siyaar auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur ñaanal yàlla suñu borom xaaran àjjana ci barki maam Cheikh Ibrahima amiin nuyu suma mbokku baay Fall yëpp di nuyu suma sëriñ suñu Cheikh Bintou Fall xam nga di wax ne sama sëriñ si sëñ Mor Abdoulaye Fall yàlla yàlla suñ borom yokk leeram tas ñu ci barkeem di nuyu waa waay ak waa Diourbel di nuyu waa wasaare bu baax baax a baax a baax di la siyaar baa Jili hmm. sama goro sama doom <laughs> di nuyu aussi place bi ñu nekk ah. place bi ñu nekk muy Darou Salaam euh, boutique. Hmm. xam nga di nuyu suma booy yi fi nekk yëpp maa ngi di cher leen jox seen wàccuwaay muy papa Issa ak mama me xam nga. Hmm. ah moom nekku fi. Hmm. ak borom bi nga xam booy bi nga xamante nii moom su ma lépp la mi ngi ba Amérique. Mm. man maa ko amul ñi naan ko am ñun tur bu ñu la am ci koñ bi nag booy bu deejoon la. ndeysaan ma koy siyaar fii di ko wax ne walloo maana ngi lay siyaar bu baax. Mm. amal jàmm saa su ne. Mm. loo dugg yàlla nga ci génn ci barke Cheikh Ibra. ñu weel waxtaanee ci kanam. ci lan nga nekk ci lan. waaw instant bi ci lu ma nekk mooy ne toog dellu ak wut xaalis surtout. nan ngay wutee xaalis actuellement. des fois ma ñëw. fekk sama booy yu taxaw ma décroché leen jël seen xaalis. Hmm. des jaay leen doole quoi sonal leen xaalis waaw. fitnaal leen des fois ma jékki-jékki dem business yi dara ñëw hmm, hmm, loolu du mën a ñàkk mais dama bëgg ci ci waxtaan bi njëkk mooy keroog da ngeen a am bis bu rëy ci diggante guy gi ak rëg ngeen préparé combat bi ñoo dugg si gis naa la sax nga boot kuy gi ànd moom dugg si ci làmb ji mu nekkoon bis boo xamante ni combat capital la woon lan nga ñu ci mën a lan nga ci jàngee ak lan nga ñu mën a wax ci bis bi keroog. waaw luñ ci jàng mooy tuuti xam nga làmb moom kenn du ko mokkal saa soo xëyee di jàng rek. Hmm. mooy bés woon bu nga xamante ni amoon nañ yaakaar ne suñu tanoor dina am ndam. Hmm. jaakaar la woon ndax ndax yàlla suñu borom moo yor ndam. xam nga ñu ñëw bu suñu borom dogal mu demee noonu. Reug Reug champion la. deful lu yàlla lu tax yàlla may ko ndam. Reug Reug aussi euh, guy gi aussi champion la deful lu tax yàlla xañ ko ndam. ñoom ñaar ñëpp ay doomu Sénégal la ñoon dañ doon bëre kii nekk wut se ànd ak say mbokk. Reug Reug la yàlla may ndam ñuy wax guy mu gën a liggéeyaat. ñaaxaat ko encouragé ko. prochain combat yàlla na ko yàlla may ndam incha allah. guy gi bi muy bëre préparé ak Reug Reug entraîné ngeen ci yéen ñaar waaw doon nañu waxtaan doon nañu waxtaan mais maa ngi moom contact gu ñu contact gu ñu mais doon nañu waxtaan xam nga mais jotuñu contact quoi ndax. lan moo tax non sûrement bu ñu waree gisante da koy da koy fekk mu dem feneen wala mu xaw a jàpp. mais euh, loolu noonu yëpp amuloon problème ndax ñu doon déggoo par téléphone quoi. non mais est-ce que seen diggante ci ñagas maanaam ratax bi mu war a ratax ba ngeen war di mën di entraîner parce que munoo ne guy gi day combat day préparer combat capital diggante ma Reug Reug nga ni non diggante bi moom amul temps wala man amuma temps ci un mois wala deux mois yoo xam ne guy gi bi mu jógee États-Unis rek def na ko fi. waaw tey xam nga ni nit kuy préparer combat yow doo ko sàkkal temps. moom mooy préparer combat mooy xam ban heure la ko entraînement bi euh, arrangé wala ban heure la ko war a def. Hmm. man li ma mën mooy mu woo ma téléphone ma ñëw mais su ma woowee après day tombanteeg xam peut-être ñu woo ko feneen pour mu war a dem. Hmm. affaire yoon mais amoon na yéene pour ñu jàppante man aussi pareil amoon naa yéene pour ñu jàppante. Hmm. mais yàlla dogalu ko quoi. noonu la ko suñu borom dogalee. ñu ne woon ñu guy gi daa perte daa ñàkk doole ci combat bi loo leen wax. non am na doole. warul non am na doole parce que yéen mënoo ko wax ni daa néew doole. parce que yéen a bokk écrit ba pare sa sa naa la. waaw moo tax ma ne la xam nga tey jii làmb chaque jour jàngat la parce que li kii di dégg ak li kii di wax du doon benn tey jii jii di gis-gisam mooy guy gi dafa ñàkk doole xam nga ama seen zone gis-gisam mooy ji guy gi doole. Hmm. ñun ñëpp duñ bokk gis-gis quoi. Hmm. mais combattant moom xam na li nekk ci moom ba mu a affronter adversaire am. Hmm. xam nga loolu moom xam nga tey jii mënuñu ci sori parce que. bu fekkoon ne jàppante nañ carrément dinañ la mën a wax xam nga ne carrément li moo si nekk mais combattant bi yëg boppam ba xam nga pare pour jàppante ak adversaire am. Hmm. dañuy jàpp ne am na doole. Hmm. am na solo ñu ñëw ci yow actuellement bi nga bëree Grand Mbagnick ba léegi ci lan nga nekk ci lan ngay dox promoteur yi est-ce que ñu ngi lay contacter est que ñu ngi bëgg sa combat ak yan façon a nga bëgg. waaw promoteur ñu ngi may contacter am ñoo xamante nii dañuy wax bàyyi am ñoo xamante ni xam nga dañ leen may dig bàyyi am na ay mbër yu ñuy wax yoo xamante ni tamit peut-être arrangé wu ma mais xam nga ñu dañoo bokk ci làmb ki mënuñ génn ci làmb. parce que dañuy hmm. xool li nga xamante ni carrément li mbër di jaay boppam la ñuy def mooy ñëw jot adversaire boo xamante ni dañ naan la carrément doo si génn. Hmm. yàlla rek moom kàttan yàlla rek moom doole yàlla moom ndam suñu borom ñu bañ génn ci. xam nga yooyu noonu yëpp ñu doon ay xale di ci liggéey bu baax a baax a baax kon nañu jox suñu waay ci làmb nañu jox adversaire yi ñu war a bëreel. Hmm. parce que des fois nga gis promoteur bu la woo wax la ay adversaire yoo xamante ne day mel ne da nga naan kii yéene wu ma sax jaamu quoi. Hmm. boo boo ci jël sa sa ko mën na daan sa ko mën nga ko hmm. doo liggéey sa làmb ba mu yegg fenn fi nga bëgg a jël ay yenn combat yi. waaw li ma doon wax per per per euh, Malick Thiandoum fan yii passé ma ak moom RFM invité woon na ma. ko per dama jeexal sens li ma yoroon ci sens ci sama poche dafa jeex. Hmm. falee ko ñu may ma sens pour ma amaat ay sens yu ma dese. Hmm. sinon ñu fay ma xaalis bu bari ma jënd sens def ko sama hmm. jeex na quoi. non naa ay sens xaalis foog mu bari ma jënd ay sens yu bari ma jënd ay sens dafa ko li ma yor li ma gàddoon pour pour maye ko jeex na quoi essence bi li ma yor dama koy dimbali ko. ñi nga jàpp ni tey da leen a war a may sens wala da leen a war a ñaan sens ñan nga jàpp ne war nga leen mën a ñaan sens ba rek. Moussa Ndoye bu fekkee dafa wér maa ngi moom combat la. Moussa Ndoye maa ko jëli. waaw open press caatu yaraax. waaw wax ko seen diggante yéen ñaar. mu ne moom bañu la bu staffam nanguwee moom que dafa am lu mu guuxal géej waaye te ragal naa ci mun na la ko yebbi. maa ngi nii pare naa loo guuxal géej waaye boo ñëwee lox bi gën a sa gën a sakkan. loo leen guuxal nee na bañu la moom loo leen guuxal yow xam nga ne man dama laa guuxal yow loo leen guuxal boo ñëwee lox bi gën a sakkan doo yàbbi incha allah bu soobee yàlla Moussa Ndoye moom ko logal dara yow. non mais loolu lu ñuy wax. naan ko logal Moussa ko logal. Moussa Ndoye donc Fall bi. ngay ne la fanaan ma ne donga Mbour Baye Jili Fall bi donga Ndar Fall bi as Baye Fall bi barki Seera Fall laa la waatal dama laa guuxal te xam nga ni dama laa guuxal Moussa Ndoye mooy ki ma njëkk a dégguloo muñal. moo la njëkk daan ci laam. ci am sama première saison ci dama def. quatre combats deux victoires deux défaites. Hmm. Moussa Ndoye mu njëkk a tànn ci làmb njëkk maa dégguloo muñal. boobu combat bi fan la woon. Iba Mar Diop. Iba Mar ku tëggoon làmb jooju. làmb jooju kii moo ko tëggoon euh, sëñ Morian. kan moo bëreewoon grand combat bi yaa ngi koy rappelé. grand combat bi su ma juumulee kii moo ko bëree Saka Dior ak Ibrahima 2. Saka Dior Ibrahima 2. waaw jour boobu xam moo faram ñaari defet la muy man ak Saka Dior. Hmm. Moussa yow bu loo guuxal waa Guèye waaye guuxal naa lu man en personne. te boo gisee boo leen guuxalee guuxal nga ma te yoo xam man dama laa guuxal kon maa ngi yow soo ay lex yi dina gonflé. non hmm. ma la guuxal la ma guuxal. léegi part Moussa Ndoye yan nga jàpp ne adversaire potentiel ngeen làmb war ngeen a mën a laale. Yékini Junior bu tegee tànkam Sénégal maa moom làmb dàq ko. Yékini Junior men. waaw Baye Mandione bu fekkee moom Zarko taxawul maa ngi moom làmb dàq ko. Baye Mandione moom ñeme woo ko jël Yékini Junior ñeme woo ko nga xamante ni. ñooñu ay lan ñeme gis nga ni dem euh, démb xoyantaan door ko ci arène nationale bi mu ko. non boobu ñun ñëpp ñun ñëpp dañoo taxawoon jàppale bay ama ñoon pour Sénégal gépp parce que lamb nation la woon lamb nation. Ah, da ngeen sot sot sot. non mais lamb nation la. du bàyyi ma ñoon moo daan xoyantaan. waaw mais lamb nation foo teg loolu nu mu nekkee lamb nation. xoyantaan di doomi réew mi. xoyantaan doomi réew mi la mais national de Gambie la ñëwee. man président CNG bu Gambie sama grand frère la. sama grand frère la. Thiam maa ngi koy ziar bu amuloon licence bu amuloon licence Sénégal fii ci làmb mënul bëre fii. non loolu ku la wax loolu da lay mbala. non euh, Xoyantaan Xoyantaan licence licence CNG la bëree. ku ñëw ba pare affilié wu ci Ikri. bokk ci Ikri Ikri bee la nekk bi nekk Mbour. waa Mbour yi ñoo ko indi. non kon da leen a yokk defar lakk may loolu. moom kii da koy tere. Euh, luy double nationalité xoyantaan dëkk Kaymoor gi Kaymoor bokk ci Saalum. Kaymoor la dëkk Kaymoor xam naa bu Saalum la maara yi fa nekk ñoom Baye kon kay ak Seck maa ngi di siyaar bu baax a baax génn wala génnu Sénégal wuy ma moom fay la nekk ay faana faana lañ xam naa baax kon kay ña nga Gàmbi ña nga lañ basé te te bi day tere double nationalité euh, kii kii dooraate bomb yi Poutine day tere double nationalité bugul loolu trop bi ngay tudd sax wóorul. nga di ko tudd. Pouty ñooy ziar di la ñaanal jàmm. Hmm. yàlla na su moom defal tawfeex. di ko sàkku ci yow waaw di ko sàkku ci yow bu baax a baax a baax. di wax ne jàmmalal ñëpp ja am jàmm. Ah. yow Pouty jàmm ci yow. Ah. barke sëñ Bàmb. Hmm. ñun Baye Fall ñëpp ñu ngi lay ñaanal jàmm yow amal jàmm rek te nga. ma wax ko mu bàyyi mu sedd. waaw ba wax mu bàyyi mu sedd. ji nee <laughs> ak Zarko. combat la boo xamante ne amateurs yi nee nañ combat bu neex la. maag damaa ragal wal gi mu wal mbay guy gi mu baal ma sama xarit bi. non parce que gisoo bët mbay guy gi li mu ko def. non mbay guy gi ñu ngi koy encouragé moom tamit. Ah, xam nga di ko jël sa wàll yow it de. di ko ñaanal xam nga prochain combat bu bëriwut ak suñu nit yàlla may ko ndam. maag Zarko aussi tamit combat bu neex la mais. xam nga Zarko dafa jugee dafa nekk Espagne lu yàgg. ñëw Sénégal gars yi yaakaar ko Kaawmaan bu tëddoon Espagne di nelaw. Ah. mais keroog bi mu simmeekoo ci làmb ñu ci bari xam nañ ne am na cër ci làmb tey aussi bokk na ci làmb. am na cër ci làmb bokk na ci làmb man maa ngi woon stade seetaan naa làmb ji mais Eumeu Sène junior du du du quoi que ce soit de man ay affaire ay affaire waxuma ay affaire. Kaawmaan Zarko su ma ne la woon Zarko moo la mën loo may <laughs> damay jàpp li wax rek sa wax nga bopp su ma nee la maa Zarko doo jàpp li wax. teel micro bi déggu ma. man lamb ji laa la wax. waxuma su ma nee Mamoun Zarko. waaw dama ne su ma nee la moo la mën. waaw lan nga may wax. kon léegi ba am def ci bu góor yàlla Zarko mënuma mu jeex yow sa wax nga boo soo ma waxoon tey moo la mën xam nga lan nga ma wax di nekk ci yow man su ma nee la maa mën Zarko li nekk ci man laa la wax te loolu nga wax noonu da koo wax. sa parce que non man bëgguma nga nekk fii di raay raayal amateur yi ñoo bëgg seen combat ak Zarko bëgg nga wala bëggoo ñeme nga wala ñeme nga li ko mbay guy gi yekkoon mm. ba jël ko ba fas yéene bëreeg moom ba ñëw làmb ja naan ko yaa ngi may séen Zarko nag maa lay séen kaay ok est-ce yow di ko def ak Zarko ok léegi ma wax la leen li ci mbay guy gi du ma Eumeu Junior ña mbay guy gi ci dégagé ay problème Eumeu Junior dégagé wu noonu ay problème mais Zarko bu amateur yi bëggee combat bi lii Eumeu Junior bëgg na ko lii te te pare pour daan la ci kàttanu yàlla man du mbër boo xamante ni damay nekk di wax man du ma xas-xas loo. Hmm. li mun a am mooy ku lekk sama avance moom Modou Baye ji la xam ne am nga làmb. bu la entre bu la euh, promoteur seetsi woon nga jël avance. loolu loolu du fee. loolu du fee. non xam nga laaj Zarko ci ci bi yomb na. mais Zarko mi promoteur seetsi la bëgg combat bi nga laaj piri boo xam ni xam nga ni prix bii du prix booy bëree Zarko gis nañ ko ci làmb. non non man doxuma ci yooyu man doxuma ci yooyu Zarko bu ñu suñ combat bu doon taxaw promoteur bu tëgg lu yenu maanaa wala nga fay ñu lu yenu maanaa hmm. barki Seera Fall ñun lamb lu tàggee man kay ñu ko mën a ñu a tëgg tëgg bi di moo la mujjee tëgg rente Dakar maa di Zarko kan ko mujjee tëgg rente Dakar ah, ah, ale jumbo Pape Sarr <laughs> bu neex am lamb ju noonu ci dooru leen ko am ba pare xam xamal la combat bu taxawoon combat da la lay doon de hmm. non man damaa suuf samay tànk suul sa tànk gëj suul samay tànk maanaam. Zarko comme li mu déclaré ci combat bi ne micro bi ne moom mu ne moom kan gi ñemewu ko. aussi may nuyu sama mbokku bawol bawol yëpp ne kan gi ñëw man dama gëj a suul samay tànk. Hmm. taxaw benn place ne fi ma taxaw du ma fi jóge. Zarko mënu laa bouger loo boo suulee say tànk. man ku ma gëdd maa reer man la neex. barki maam Cheikh ku gëdd ma seen. jafe jafe jafe na Zarko gëdd mbër mu taxaw de. man kay carrière Zarko lépp ba ci guy gi sax ñam na. kaama xamal daan na mais ñam na de. kaama xamal la ñaar bu ne périm Zarko fu mu taxaw ma ko jóg fii de fu mu taxaw ma ko puusal. donc donc Cheikh Rafal bi ngay waxal di Mourou baay Djili xam na ni ragaluma loolu. actuellement. lamb bari na ay jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi koy gis ci xale yi mooy bu ñu daanee damm sees buñ leen daanee damm sees say supporter dégg naa ñoo njëkkee ñoo inauguré damm sees. supporter yi ñan. yow Eumeu Sène Junior. d'ailleurs mukk ci àdduna Eumeu Sène du ànd kuy yàq du ànd ak kuy kuy kuy kuy kuy saccagé du ànd kuy kuy kuy kii. yàqkat man du ma ànd ak yàqkat. Hmm. man samay supporter soo ma daanee. ñu ñibbi ci jàmm su la daanee ñu ñibbi ci jàmm ñun xamuñu histoire xamuñu lu ñu xam. liggéey ñàkk jariñu hmm. xar leen daal la xam ne moom may nit wax ci lenn lu nga xamante ni mooy bu bàyyi faal gi jotee moom jaral nañu suñ bàkkan root waaye à part ay làmb yi nii duñ ci histoire duñ ci def dara boo ñu daanee ñu dem suñu yoon bu la daanee dem suñu yoon duñ coow te booy yi képp kuy def loolu li ngay yàq ñun ñoo ko moom arène nationale jooytu dañ ko fu ne wax nañ ko fu ne ba suñ borom indil ñu ko ci nguuru Macky Sall ak la la ministre kii Matar Ba Ba hmm. ñu ngi koy félicité di ko ci seen nguur la ñëwee nañ ko fonk ñu dañoo waroon sax saa sax dimanche wala sax samedi supporter dajaloon ñëw bale arène bi après nekkaat ci jàmm mais nañ bàyyi yàq bi ak saxaase bi baaxul suñu alal lañ yàq suñu alal la ñuy yàq la ñuy yàq ñoo ko moom nañ ko bàyyi rafetul barki see rafet rafetul ci image bi rafetul ci sponsor yi war a ñëw rafetul ci ci ci ci ci deru mbër bi imagine toi tey jii booy Liss ñu ngi koy ñaanal njëkk su mënee sedd na sedd hmm. xam nga Liss Ndiago bëre ñàkk doon xale war a war a ñëw taxawaat ñu aj ko trois ans. Hmm. ndax lan ay supporters am. amaana ñu koy yàqal sax peut-être ànduñu ak liis wala dara. mais est-ce que tamit dañuy wax. mais est-ce que tamit CNG bi am nañ droit que ni mbër mi mbii bëre. Hmm. ay supporters am yàqu. ñu ñu ñu mbër mi dagg xaalisam téere li kaam tëj ko euh, euh, aj ko suspendre ko trois ans est-ce que CNG bi war nañu def loolu est-ce que duñ xoolaat tamit texte nan lañ war a mën a def. ci xale yi rek maa ngi koy wax parce liis du dugal kenn mu simplifier yóbbu. Mhm. liis dugal kenn mu yàq. liis jour bi mu ñàkkee tal na leneen lu dul digal nit mu yàq. Mhm. sama xalaat bu gàtt. Mhm. xam nga CNG loolu noonu moom war nañ ko xoolaat bu baax a baax ku daan rek paga arène nationale bi tey jii supporteru liis mun na nekk nii supporteru keneen nekk nii koo xamante ni ñoom ñaar bëriwuñ ñu dend. yàq am ñu jël ko supporteru Liss hmm. fekkul supporteru Liss supporteru keneen la hmm. parce que newuñ ne ñii fii la ñuy toogee ñii fii la ñuy toogee amateur ñëpp ay pëccaxoo ñëpp ay ku ci nekk koo bokkal bi bu ngeen jënd yéen a bokk fu ngeen toog hmm. kon loolu nañ ko nañ ko xoolaat bu baax quoi parce que neexul nga bëre ba pare ñu aj la lu yàgg loolu wala ay nga bëre ba pare ñu daan la yàq sa xaalis am ñu ko teg ko sa kaw tamit da ngay reew a tas. ñu ngi ñaan dagg sa xaalis aussi dagg sa xaalis. gis te ñaankat yu bëree bëree bare bëri. nga yoral leen xaalis neen su ma jotee ci sama reliquat dinaa la fay. non mais loolu moom loolu moom nga boole defet boole say supporter yàq stade loolu moom boole xaalis bi nga waroon jot pour fay say maara yooyu yëpp nga loolu moom ji lu ma la ci waxul baaxul. Hmm. sax ma ne pare naa combat bu nga xamante ni sama combat ak Tigre Blamsar maa ngi koy nuyu mais respect classe maa ngi koy siyaar bu baax. Hmm. ñoo bokk promo. Hmm. dama bëri ba pare desel waa CNG yaakaar naa vingt mille laa leen deseloon. yow yaa leen ko desel. waaw luy loolu ñoom ñoo la sori. paka boobu ñu ma fayoon quarante mille. Hmm. waaw quarante mille lañ ma fayoon. ci combat bi yëpp budget combat bi. combat bi waaw quarante mille. quarante mille lañ ma fayoon j'espère quoi. waaw ah. bi ñu ma fayee quarante mille ñu ne ma. non soixante mille safur la waaw soixante mille lañ ma fay. soixante mille lañ ma fay sama premier combat bi ma fay quarante mille. soixante mille lañ ma fay ñu ne ma. dix mille euh, minute bu nekk dix la. Hmm. ma tardé ci ci autoroute bi boobu péage bi kii des ubbeegul espère. Hmm. ma tardé ci autoroute bi presque retardé naa lu mat ay vingt minutes. vingt minutes deux cent mètres. <laughs> man la ma yore seen daa bari. daa bari moom. dañ maa jégal la ko war a dàgg. ñoom dañ maa jégal te yàlla tax. boobu Alioune Sarr ne woon dañ maa jégal loo xam ni kii gone la te ndeysaan boobu ma jógee géej waay gépp jóg. ndeysaan géej waay fii benn mbër moom féppoon supporter. Hmm. muy Balla Gaye mais araya bi yëpp su ma jugaan ñëpp ma barki maam Cheikh Ibra leen rek moo taxoon ñu bari xawal ma ko te xaw ma bàyyi. da ngaa gëmul sa bopp da ngaa dem cuub cuub sa drapeau. nañ dem feneen kilifa la woon samay mag laa nekkaloon. ay sang góor gi maa leen di nuyu de passage sumay grand la ñoo ma yar. Hmm. ay xaritu Eumeu lañ ñoo ma yóbbu woon Pikine mais ma demee ba nekk suma mag bopp xam ne man mii produit Guédiawaye laa produit Mor Fadam laa dama dellu sama bopp. loolu bokk na ci li gën a fare. fare na ak damm damm ba surtout. damm bi la woon. dama yoroon sama moto dama tegale ñaari soog même pas ma ànd ak ma seet ñu dugg si oto oto bi këpp def quatre tonneaux ma ñib si. même pas boobu ci nga bokk. maa ji gënoon sonn man maa ji kaw. yaa am seen. waaw man man la am seen ñaari yaar ak chauffeur ñaari yaar. waaw benn bu Pikine. ñun ñoo nekkoon ci bi. ñaari yaar bi doon bëree njëkk a doole. waaw ak chauffeur bi. waaw ñoo man ñaari yaar moom maa ngi lay siyaar frère dara dal carrière xaw ma daa am gàllaaj xaw ma lu ko lu wokk dëgg la boobu. ndeysaan wér la def. ama seen. ama seen wàcc na naan day miir ma téye ko man boobu bu ma koy téye ma lu ma arrivé man. waaw boobu sedd na. teel sedd na trop boobu sedd na mm. trop ma téye ko ma ko téewee. mu naa maa ngi miir ma jékki-jékki ma ne la am luy dox sama ginnaaw ma laal muy deret ma ba ko mu toog. man ma tëj ma toog jàpp sama ñaam man moo ci gënoon kaw après service daf ma gaañoon ci dënn. Seydou daf leen tànc quoi waaw bi nan la demee woon fan ngeen jóge woon ak fan ngeen doon dem. dañoo jóge fii di dem Wourossogui. ñu ngi leen doon préparé combat. waaw suñu mbokku tukulóor ñoo ñu am embuscade ci lañ. ci lañ boobu seen combat kal na. boobu mu seen mi préparé Modou Lo. bu mujj ba wala bu njëkk ba bi ñuy dem sax sama rappel très bien Bécaye Mbaye mi ngi naan Eumeu Sène mi ngi dem Fouta fa lay sànni làmb ji mais suñu borom dogal mujj ñu yegg. fan leen leen a embuscadé ak nu ñu leen embuscadé. këpp oto bi ñu bokk tugloo yi. nu ñu ko defee ah? loolu fële mu daan. seen buur yi daal. déedéet suñu suñu jaam ñëw <laughs> fële a dañ leen a dogaat. ko ëf mu ko bi jaaxaan ji bëri ngi wéy. Hmm. mais suuf si. cee mais soog garaaw na. ba pare ma wàcc xam nga damaa ma wàcc weex tal tal tal. non mais lu gën a après léegi non non soog bi moom faw ñu taxaw lu ci. Pape Cargo. bi sama yaram bi di naaj. Hmm. Pape Cargo maa ngi koy nuyu. sama yaram bi di naaj sama bopp bi du naaj mu ngi soloon benn jàkk bu weex. ñu ne ko sàngal seen Sène junior parce que sedd bi sonal na ko ba pare deret di bari na léegi mu bañ jàkk bi takk deret mu ñëw ba sama tànk yi sàng <laughs> ma ne nii. foofu sànni xeer am xeer ko. barki Seydou Fall du jaaxa. moom bu cax sama tànk yi jàng bu denc. dama dama sàng moom fii fii moo liw hmm. taxul direct mu dem sàng tànk yi. moom bu cax sama tànk yi de man yàgg nekk bañkat. ndeysaan tànk yi dañ ma des ma des sedd bi. maa ngi ko nuyu moom tamit de passage mi ngi Italie. Hmm. Euh, mais soog bu garaawoon la après ñu teg ci un mois. Hmm. ma jógee entraînement euh, Taïsinga. yor suma moto ñëw ba amoon siis fa defee soog benn oto benn Mercedes xam nga falaa defee soog Mercedes bi dafa génn si kon bi tombante ak may daw dem. Hmm. xam nga man yéex naa ko gis pare mu ñëw tegal ma ci pono bi la dal ba génn moto bi sama sëriñ bi teg a damm. pare ma toog presque quatre ans trois ans et quelque bëreewu ma. quatre ans bëreewoo trois ans et hmm. léegi ci moment boobu ci lan nga doon dund. waaw ci moment boobu ma dem Diourbel biñ ma bi ma demee ba ba ba bañ tabax sama tànk ba pare. Hmm. ma ma dem Mbour. suma kër yaay nekk suma grand frère Balla maa ngi koy ziar di ko nuyu mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi doon soog ñibbisi sax mu woon France jamono yii yëpp di ko nuyu bu baax di nuyu suma frère yi ak sama sœur yëpp xam nga ma nekk foofu toog fekk ñu ngi waroon tabax ma sabo ñu tabax ma ba fii hmm. ma tabax ma ba fii ma dem affaire a tane ma ma wàññi ko quoi. yaa ko wàññi sa bopp yaa ko wàññi sa ma wàññi. parce que dañu bëggoon chef bi fixé wu. waaw ma wàññi hmm. ko sama bopp léegi moo ko wàññee après dindi ko fekk. kii bi sa delluwutoon quoi. mais hmm. kii bi moom wér na. fëlir euh, bi moom wér na. Hmm. léegi sëf bi delluwutoon après léegi mu topp. Gàmbi laa fajoo lu ci bëri ak Diourbel. di faju faju wolof. waaw di faju ah, ko. ñu mbër ñu koy. Hmm. di ko damp xam nga ba mu dellu normal. avant ma nekk Diourbel aussi di mbapat di mbapat di jël ay nag di jël ay ciment affaire yooyu noonu ba xam nga xel xaw dalaat. mu ñëw wax ak Eumeu Sène ne ko damay dellu sama koñ mu ñaanal ma ma dem ñëw commencé entraîner deux ou trois mois parce que tooguma woon ñu jox ma général Malick. sa dëggante ak Eumeu Sène dégg naa rataxul de. non man xaw ma ci lu rataxul de. waaw rataxul seen diggante yéen ñaar. non maanaam te jii. relation bi ngeen seqoon yéen ñaar Eumeu Sène du toog ba jël téléphone woo doo toog ba jël sa téléphone woo ko. Eumeu Sène même bi may nekk Ikirem du toog ba jël téléphone am woo ma. soit que dafa bëgg ñu ànd fenn même bi may nekk Ikirem man ak moom du ñaaga lu rax ratax ak lu ñagas maa moom amul jot aw ma jot. du ngeen woon ay xarit quoi. non c'est-à-dire tuddee ko sa bopp. voilà voilà mais tur boobu tey rëccu woo lu tax nga tuddee ko. non non amul ma si rëccu amul ma si rëccu you que samay kayit lépp lépp loo mun de ama seen jour la nit ñi xam ni mais samay kayit Serigne Modou Ndiaye Baye Fall bi moo ci ne. Serigne Modou Ndiaye moo ne samay kayit. tur bi ngeen biñ lay woowee. ma seen na taxoon nga tuddee ko sa bopp. bëgg ko am cofeel ci waaw loolu la woon nag mee loolu du dara tey jii mu ngi si njabootam maa ci sama njaboot mi ngi gérer famille maa ngi gérer suma famille Hmm. mais du ñu woon ay xarit en fait du ñu woon ay xarit yu nga xamante ni tey jii. dama nekkoon dama nekkoon xale fan ko bëgg ko rek bëggoon quoi. mais gisoo ni woon moom bëgg na la quoi bëgg bi. non même pas lool sax du question bu gisoon woon ñu ma bëggoon peut moom am na ñeneen ñu mën a gën a liyeele wala dara wala dara quoi. Hmm. ñeneen ñu ko gën a jege wala dara mais même bu may nekk igri ba daaw musuñu musu musuma toog benn instant mu yëkkati téléphone pour woo ma comme instant bi ngay jékki-jékki gis Sa Thiès wala téléphone ngeen waxtaan xam nga hmm. wala Alioune Seye 2 ngeen waxtaan non loolu musul xam suma diggante ak moom soit dara soxla pour ngeen génn dem fenn mu wala téléphone ngeen dem ba pare hmm. mais tey jii ay magum jëmm lañ xam nañ bu baax xam nañ bu bon xam nañ ci war a teg suñu tànk juumte nag du ñàkk si doomu aadama parce que ay nit kese lañ hmm. waaw am na solo maa lay jaajëfal bu baax a baax waaw di wax ne tey jii place bi nga nekk nii dañ ma fay dig iPhone ba pare ne ma xoolal bula la neex. iPhone bu neex moom bu rafet. waaw pour jël borom kii ñett bëri day fay. jëlee XR bi baax na. mooy comme bi nga yor nii. waaw kon yow ñoom joruñu la may iPhone yow am nga. non man bëgguma iPhone. loo bëgg. man. <laughs> waa sant yàlla damay woo rek ne ma ma ñaanal wala may la xaalis ñaanu kat la ma ne ko loola xaalis bi ñëw. xam nga di nuyu di nuyu ndeysaan kooku ku baax la. mais kooku xaalis da ko. xaalis ko bëgg loo xaalis laa bëgg. non kooku fexeel na xam nga kooku di bu fekkee ci àll bu ne ma ñaan la dama jël ñaan gi de. Ah. non bu fekkee ci àll Baay ah. ma ñaan la wala jox la xaalis te ma ah, ñu la xam nga cest à li may def dafa garaaw mooy day ubbi poset bi ma gis ni mu ko raagalee li ma jaara gi nii damay tàllal sa loxo ba ñaanal la wala ba ñuq ci façon bi jox la. ñaan gi mun na yaram bi day ñaan léegi est que duñ ko séddoo nga def tuuti ñaan tuuti xaalis. non nay tombeek ñaan gi muy kaf. wala tombe malaaka bi dox amin day jël xaalis bi xaalis bi ma amin ja dafay ne. <laughs> amin ja dafay ne. maa lay jaajëfal waaw xam nga mooy nuyu suma rakk yi di ay magu bopp ñi nga xamante ne suma ay magu bopp la di nuy suma waa staff sa daaru xam nga di nuyu école Mor Fadam di nuyu Vieux Kane xam nga lamin Touré maa ngi koy siyaar bu baax di nuyu waa Diourbel di nuyu suma ministre suma xarit ministre daam Diop Mm. xam nga ak euh, garde rapproché am Koli euh, maa ngi koy ziar. Mm. Abbas Koli maa ngi koy ziar Zeyzen di nuyu grand grand grand grand grand Vieux xam nga di nuyu suma grand Galas ak Xaadim xam nga di wax ni Vieux moom c'est mon grand à suma xaritu bopp la. Mm. suma mag la suma xarit la maa moom boo doogoon sax léegi léegi mu fekk la fi. di nuyu waa place bi di nuyu Abdoulaye Issa Papa Ndiago ak Mama Amé. di leen wax ne sama sama iPhone xaaruma combat bu ñëw. iPhone bi léegi laa siy jot incha allah xaaruma combat bu ñëw. neex naqari neex la neex naqari wóorul. Ah, sarax ndongo daara mbaa mu jëlal ba tey loolu waxe wolof la mais neex naqari wóorul. si hmm. yow da ngay jékki hmm. ba pare même sa waay ji naa yor <laughs> yor na yor na yor na boo xamante ni. aywa bàyyi ma ngir yàlla poussière la trop na nooy nga mooy faatu nga gaañu nga yéen nga àdduna barki maam Seydou Amar. <laughs> même masque yi nii mënu dara. ndeysaan boo takkee mas de perse masque. ndeysaan. non Poutine yàlla ko yàlla defal jàmm. amiin amiin ku baax la yàlla yàlla def jàmm mbokk yi di leen jaajëfal bu baax. di nuyu di nuyu waa place bi bu baax a baax di wax ne amul. fils booy sama iPhone na gaaw ñoom bu xaar may combat. Mm. yoo xam nga ne yàq naa satisfaire ci ndam sama fils nga mooy loolu noon di nuyu waa Géejawaay yëpp yëpp bàyyuma kenn di nuyu waa Jurbel bu baax a baax marché kàdd ga xam nga sama koñ kër seex ñëpp siyaar naa ñëpp ak lu làmb maay siyaar ñëpp du nuyu waa Rente Dakar di leen wax ne ñi leen di ñaanal jàmm bu baax a du nuyu promoteur yëpp Aziz ñu ngi koy siyaar ne ko gaan ñoo tegee ñëpp loxo tegee ñu ko loxo xam nga il est temps yi jàpp ci ñun tamit ñu dem fu sori di nuyu waa karaf bi ñu nekk di nuyu ñëpp dina ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp di la wax ne yàlla nga am soxnaam balaa yàgg. parce que maa ngi koy jaajëfal bu baax Eumeu Sène Junior nuyuwul soxnaam. waaye maa ngi koy nuyul soxnaam. madame di leen jox euh, dig daje ba ëllëg. incha allah maa lay siyaar bëgg ñu xuloo ndax raxam laa war a takk ñaare.